jërëjëf buur maa ngi leen di fay di leen baalu àq di baalu àq sénégalais yi di wax ni maa ngi baalu àq ñëpp ndax ñun moom euh, xëy na ak daa sew la ñuy wax te xam naa ni bokk ci dëkk di woo sëñ bi rek jotoo kook li occasion la ñu baaluwaale monde monde entier ñëpp ñu ngi baalu ñëpp ak di leen dalal ci kër gi buur. sëñ bi ku ne xam na ni Korité ren gi dafay euh, Korité gu spécial ndax dafa tombeek euh, pandémie am ci di Covid 19 julli gi rek naka la ko sénégalais yi wala sëñ xaas en waaw Sénégal li ñu koy dundee mooy métti rek ndax li dugg ci réew mi duggul sax ci réew mi li dugg ci àdduna ñëpp xam nañ ko mooy tawat boobu ñu woowee Covid 19 di ñaan suñu borom ci weer wi ñu woor yàlla suturaal ci jaam ñëpp tuxal ci tawat bi dàq ko moom moom yàlla rek a ci gaaw kon ñu ngi koy ñaan moom sunu borom mu suturaal ñu dàqal ñu ko di wax ni li ñu ko dundee moom la ko Sénégal yëpp dundee mais jàmm bu gëm nekkee sa xol ak gëm rek daanaka buur lu metti rek bu ñëwee da koy dékku. moo tax ni ma ko dundee man jàpp naa ni yaa salaam daal laa ko dundee te Sénégal yëpp moom lañ ko dundee. ku ne xam na ni euh, état du Sénégal dafa jël beneen élan de partage. mooy dimbali famille ba dégager ay enveloppe bu 1000 milliards yi ñu jagleel ko euh, famille yi euh, tey buñ ko doon jàngatee ci wàllu ndimbal. waaw sant yàlla la xam nga état moom ñun sénégalais ñoo ko doyloo ba yëkkati ko fal leen teg leen fa ah loolu ñu ko. loolu ñu leen yëkkatee teg leen fa yaakaar la ñu am ci ñoom kon bu ñu demee di dimbaliwaat Sénégal yi ba développé ko loolu pour Sénégal yi duñ def lu dul sant leen te rafetlu ko aussi te xam ni ñoom la fi yàlla teg pour ñu yërëm askan bi askan bi it yàlla boole ñoo état bi kenn mënu ñun mënuñoo dem bàyyi leen ñoo mënuñoo dem bàyyi ñu kon dañuy rafetlu lu ñu def vraiment di ci kontaan daal ku ne xam na ni euh, doomu daara nga am Ablaye Diop tey bi plaider ci cause daara surtout la gën di plaider tey euh, est-ce que jàpp nga ni que daara jox nañ ko wàllam ci mbir mi war a waroon na ci am wàllam te jot ko. waaw li ma jàpp mooy des gi mu des suuti rek xam nga alxuraan ku ne xam na ni yërmande mu ngi ci rawatina dëkk biñ koy jàngee dafa am loo xam ni xam nga alxuraan moom li mu mën dara mënu ko. kon daara yi li ma ci kii rek tuuti xëj na état bi après dina ci gën a def ay tawat xëj na ak sëriñu daara yi gën cee jug mooy xale yi ñu dajale jëlaat leen yóbbu man su may ñaawlu loolu rek lay ñaawlu parce que jàppoon naa ni mënoon leen leen fee teg jox leen ay yoo xam ni dana leen gën a jàppale gën a dimbali ba liñ bëgg day am man loolu laa jàpp waa. mais jàpp nga ne que doxal bi maanaam dimbali daara yi waroon na jot nañ ko. waaw buñ ko jotoon gëm naa ni duñ dem nag ñoom ñëpp xam naa parce que si gam ñiy dem nag du ñàkk ñu jot mais. gëm naa ne ñu ci gënoon jéem ay yëf mooy dañ leen di bàyyi fi ñu toog jox leen ay mesures jàppale leen ba kenn bañ a dem yalwaani su ko defee ñu toog di jàng alxuraan bi leen taxoon a jóg. Hmm. ji am di ci bari ne am na borom baatin yu hmm. na ko mbokk ci ñu ci ñu ko sama waaw xam nga xam nga jàngoro bi moom defe naa ku ci taxaw seetlu yàlla moom en général yer sax xëj na bu bu dalee ngay door a xam ne dal na mais waa ji da koy xàcc ba pare door a door ku ne xam na ni mbir mi bi dugg Sénégal moom Euh, am na lu duggoon loo xam ne ñëpp la jaaxaloon ndax koo déggal mu ne waa ngelaw li fu mu jóge lii fu mu doon fu mu kii loolu rek misaal la xam nga yàlla moom daa bëri yërmande ba tax na lu muy def da avertir maanaam avertir nañu mais nag ba pare mu door a dal ñun. mais dégg nañ ci yenn borom baatin am na ñoo xam sax dañ dem ba ba ni euh, nañu leen yóbbu ci ñu ko am ñu faj ko buñ ko fajul na leen procurer teg loxo est que jàpp ngeen ko feebar la boo na. Ah, bien sûr bien sûr ah xam nga ñaankat yi. tey bu ñu demee ba dara di leen tëj ci côté boobu boobu ñu bañ a ñaanati ndax defe naa ki toog di ñaan mooy li tëb médecin lay faj léegi li ci ëpp solo mooy ñoom buñ ñu jàppale woon comme côté boobu man yàgg naa koo jooy buñ ñu jàppale woon comme côté boobu ni ñu nit ñi mu ngi xam nga ko dem ba naan procureur dañ jàpp tëj ko am na fu mu ko teg mm-hmm. ku ne xam ne ni kaso neexul mais jàpp naa ne du micro rek moo tiim nit ngay wax parce que bu doon micro rek xëy na mën nga wax leneen wala li nga war a wax bari na mais boo nee lii buñ ci buñ ci réussir police maanaam procureur nañ jàpp tëj kon xam nga ni loolu kooku am na ci misaal bu wér nit lii buñ ko ko joxee dina ko faj te man yàqin boobu laa am aussi. Mm-hmm. sëñ Abdoulaye mën nañ ko yaakaar ci lu ah xam nga man moom euh, te du du du lu diis sax waaye nag yàlla bëri na sutura xëy na yàlla ëpp kàttan yàlla ñu yàlla jàppale rek dàqal ko boppam ba kenn bañatu koo dal mm-hmm. est-ce que le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr euh, parce que ku ne xam ni euh, yene moy bolé 30 praticiens comme la xew Madagascar. Mhm. parce que garab gën fay fajee di artemisia. Mhm. ay fajkat traditionnel. Mhm. ñoom ñoko ko est-ce que tey le ministre de la santé et de l'action sociale tàllal leen loxo pour yéen borom xam-xam yi euh, ngeen liggéey ak waa kër docteur pour trouver ay solution waaw man dé en tout cas sama bopp daal ci benn côté xamna ni bo ba mu joté xew waxtaan nañ ci loolu moom xam ci dara waaye lu ci ëpp moy comme Sénégal dafa nek réew bo xam njiit bi day bëgg a def sax waaye day ragal ndax li ci ginnaaw laxasu ci moo bari xëy na côté ba waaye Diouf Sarr bu sañoon tawat bi du am Sénégal ndax moom nelaw soo defatu ko parce que mu ngi jaaxle goo xam ne moom mara d'Italie moom ministre de la santé di ko mastawu waaye moom loolu moom xam naa ne mu ngi ci yoon wi ndax xam nga jàpp naa ni fa mu jëm bu demee ba xamatuñ fa mu jëm moom defe naa dinañ ñun kaay leen loolu moom am naa ci rafet njort feebar ci yàlla ci wàllu baatin dana fi yàgg hmm. fii wax ko mu yëg ah. bi ci wàllu baatin dana fi yàgg bi ci wàllu baatin ah xam nga am na ñu ci wax nag te nañ gëm lañ wax rek xam nga mooy la ma waxoon nga waxi nitu yàlla du hasard sëñ mu taxaa wax na ci eh, Ahmad Khalifa ñas dégg nga ko mu wax ca wax na ci wax boo xam ni dañuy jàpp lool rek hmm. waaye nañ ñaan yàlla sax mu bañ fa àgg hmm. waaw moom balaa màggal gi la wax nañ ñaan suñu borom bu mu sax jege màggal gi suba wala ginnaaw suba rek na tawat bi jóge fi yëpp nit ñëpp mën a doxiwaat seen xam nga dëkkee boor bi bëri précarité la yëmbal loxo jot seen ginnaaw dafa bëri. Mhm. Eh, jamono ji borom kër yu bëri dematuñu dikkatuñu amatuñu. Mhm. te ku xam alwaajur social xam ko dans le social. Mhm. Eh, nan nga fas yéene dund ak waa gox wala nag nga doon dund ak ñoom ba tey jii. waaw man ni may dund ak sama waa koñ defe naa ba tey ji ci loolu lañ nekk mooy. toog seen wet euh, defe naa lu cëpp sax ci suuf laay toog man moom du ma tëju damay wax ni daal l'essentiel li nga li ma yàlla séddee ma yor ko ku ñëw dinaa ko bokk ak yow fa ma cee yem nag laa cee yem du ma def it lu ma mënut waaye dimbalee moom ñaan nañ suñu boroom sànq ñu ngi nooy di ko def bu ñu sañoon duñ dimbali kenn ndax kenn bëggul ku dimbali ku sañoon yaa defal sa bopp mais comme suñu boroom moo bind yemalewul li ñu yàlla jot a dénk kus néew dañ koy bokk ak ñëpp moo waral moom loolu daf ñu daf ñu cee fekk te incha allah ñu fi bàyyi incha allah. ku ne xam na ni fan ni am na lu xew ci plateau télé yi euh, ñu bëri di ko ñaawlu mooy dañ jàpp ni que benn guerre la ànd tarixa mooy ci benn émission bi am ci benn télé euh, bu kii ñëwee tàgg sëriñam bu kii ñëwee ñu tàgg sëriñ yow luy diviser la wala luy boole la. ah bu foofu foofu diis na xam nga xam nga damaa jàpp ni euh, xam nga Sénégal ku ko xam-xam koog mag ñi ndax defe naa liñ fi bay liggéey ko fii. dara du ko dindi du man ma koy dindi du keneen a koy dindi cest à ku ci nekk gisinam rek waaye jàpp naa ni bu demee ba nar a jur yàqit luy jur yàq moom baaxul dangay ngay teel a bàyyi rek comme demagul fenn ah te loolu ngeen ko yëgee noonu laa ko yegee mais man ni ma ko yëgee woon rek mooy ki ñu invité man sànq jàpp naa ni murit bi mënta toog seetaan beneen taarix ba mu jeex yëg ci xolom kooku pour man muritam des na Tidiane bi même chose xaadir bi même chose Layen bi même chose Niassène parce que ñoom ñëpp benn bopp rek lañ sukkandiku mooy Seydouna Muhammad kon nag dañuy jàpp ni peut-être tolluwaay yi foofu la ak xër mais man li ma jàpp ci côté boobu moom mooy euh, comme li fi xew bari na waaye dañoo jàpp ni bu demee tey ba noro boolewul dafa noro féewale kon nañ ko dàq mu dem daal moom moo gën a. conseil ko conseil taalibe yi. conseil bi mooy conseiller taalibe yi mooy par exemple xam nga. sëñ Tuubaa moom munoo koo gëm mukk lu dul da gëm yeneen mag ñi te Serigne Cheikh mas na ci wax wax ba am solo nee na nee na benn waay daf ko ni Tiijaan Murit xaar moom lépp la ci Serigne Cheikh xawal ko ni même moom moomu ki ñàkk sens mooy ku fa fekk ñett yëpp te fexewoo cee am ñoom ñetti ñëpp kon bu ñëpp doxee woon noonu rek day daal di noppalu parce que lépp benn la rek boo xoolee man mënumaa wax mukk ba tutee ñu gëm ñee gëm ñee kii it mënut a wax mukk ba tutee ñu gëm ñi gëm ñi kon li ci rafet rek mooy nañ xam ne ñii sunu borom moo leen fi baay tax dem nañ ci dem nañ ci zaayir teewul bu màggal jotee gis nga na Touba di mel Tiwaawoon même chose dëkk yi ci des yëpp même chose kon nañu rafetal te bàyyi saagante bi surtout moo ci gën a ñaaw surtout parce que tey ku dem ba toog ci internet di saaga kilifa boo xam ne yow xam nga ni kii tey wax nga loo xam ni fam lay baalee mara day taal yi kon ëpp na di wax moo tax lu mel ni daal rafet na ñu gën ci xoolaat ñii saaga it xam ni gëm si di xaali Malik saaga sëñ Tuubaa amul njëriñ gëm sëñ Tuubaa saaga si amul parce que tey daanaka ko ci yàqu rek yàqu nga ca keneen ka kon loolu moom jar naa taxaw seetlu la. Hmm. sëñ ngi doon sàkk benn projet hôpital moom sëñ projet gëm naa ne xam naa dinañ ko defal suñu bopp ndax euh, ñu ngi ci te am nañu groupe bu mag boo xam ne ñu ngi ko formé ca Europe di nuyu présidente bi ba moom taxaw na uniquement pour loolu pour tabaxal ko ñoom defal ko seen bopp pour wax la même ñun it dinañ leen ci jàppale ndax euh, des na tuuti moom dinañ dem ba. traditionnel fi ko gars yi yóbbu dina fa àgg fu ñu ko yóbbul dina fa àgg ndax nit ñi gis nañ ci seen bopp te kenn mënatu leen cee génne. sama laaj mujj secret Serigne Bara Diop Fass. sant yàlla julli ci yonent bi secret waagul. Eh, yi ne fii tey eh, ngeen di bàkk yàlla ak doy na misaal bépp tarixa laal na ko ma yëg ko ci sama xol lool kon ñëpp rek noonu la ñu war a def. pour wax la parce que dara dàqul lii ñun Sénégal lii lañ xam lii lañ namm mooy ñuy bàkk mag ñi nga koy yëg ci sa xol te bañ cee gaañu waaye ku ñuy bàkk sëriñ keneen te nga koy yëgoo ko ci sa xol ba cay gaañu man jàpp naa ne yow gëmoo sa sëriñ pour wax la ñun moom lii yàgg nañ ci man moom suma leen nambee nii laay def dama leen di woo rek ñu toog bàkk yonent yi ba mu yëg ko rek ñu daal di dem. seen bon message bi muy mooy di mooy li wax rek xam nga di baalu ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. di wax ni sëriñ metti na bëri na ñu ñëw di suñu sëñ Ablaye mer bëri na ñuy woote jotuñu mer maa ngi lancé message ñëpp di leen baalu ak di wax ni benn jëmm la metti na waaye ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di baalu ak ñoom ñëpp di leen jox loxo di leen baalu ak daal. waaw fii de moom boo ma gisee xam ko moom melul li wax dëgg la xam nga xam yàlla xam ne moom laay nettali tey ci bisu korite gi avant may tijji dama xëy rek am yëg-yëg ni waa Europe tey ko ma wooy jot ma moom laa doon wax ñi tey ndeysaan damaa xëy di wuyu mais koo ci wuyu léegi sax mu wax la waxi korité mais soxla boppam la lay wax pour nga xam ne nit ñi sonn nañ ñu nekk Europe sonn nañ wallahi ñu ngi fi bàyyi seen i famille bàyyi fi seen i soxna bàyyi fi seen i yëpp imagineel li ñu lay wax mooy sëñ bi fi dara doxul ñaanal ñu ñu ngi bëgg ñibbisi ci jaboot gi kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci xol sunu borom suturaal leen ba lu waay bëgg ci ñoom di ko mëbat rek yàlla def ko ndax metti na tey boo leen doon déglu wala tey nga jot ci benn audio da leen di yërëm pour nga wax ñun li ñuy daj metti na comme mas nañu dal fan yi dama toog ba ci yàgg benn mel ni dañ ma ni wuyul ma wuyu mu xamal ma ni tey soo ma jotuloon envoyé naa la benn vocal boo xam ne boo ma jotuloon tey damay xaru te suma ma xaroo damay bind ni yaa ma pour wax la su ma xaroo damay bind parce que maa ngi lay woo jotuma la sëñ Ablaye yow lan la sëñ Ablaye yow lan la sëñ Ablaye nangam sëñ Ablaye nangam sëñ Ablaye nangam pour nga xam kooku tey automatiquement li ma lay wax ni ku ñu naan Papa Ndiaye mais doy na seede bi ma dégloo audio bi sama yaram daa dawaat te su ma nee la jàppale naa ko ci la bëgg te laaj parce que pour wax la ñàkk ñoo jot la rek waaye suñu sañoon buur kenn du am soxla bay dem ci kenn buur ku sañoon wallahi sa soxla sunu borom moo koy faj yàlla nag mooy faj soxna soxla amaana da koy jaarale ci nit mën na ko jaarale ci kii jaarale ko ci kee mais di baalo ak it sëriñ sépp di wax it ñun ñëpp benn lañ xëy na ak man moom awma jot boobu sax déedéet déedéet nu jërul fii xam nga tey gëm naa ne li sëñ Ablaye nekk di ko recevoir defe naa su ma sañoon am junni yu mel noonu di recevoir ndax man mënumaa jël ñëpp. li ñuy ñaan rek mooy xëj na ñu gën a rafetal parce que jàpp naa ni même ñu nit bu ñu gën a rafetal liñ bëgg dina dinañ ko mën a am daal.